beneen ponk li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf maire bi yoroon Macky Sall ak rakk ja Alioune Sall ma ngay rëccu lu mu leen xame woon ndax nee na wàccal leen fayu ñu naar bi xoromam leen observateur page 6 ba 7 lépp maire bi la Aïssata Arona Ndiaye la tudd tey juróom-ñaar fukki atam teg na quartier sam ga mu dëkk ca Kaolack la ko l'observateur fekk maire Aïssata ne leen muy Macky Sall di Alioune Sall dañu ma abandonné waaye yaakaar naa ne su ma dee xanaa dana ñëw sama dëj ne lii lébalu ma leen ko li ko Pape Sambari Ndour bu l'observateur njëkk a laaj moo di Macky Sall ak Alioune Sall nu ñu def ba ñëw ci sa kër lu leen fëndi woon li ko dëkkandoo Macky Gassama la nekkoon ginnaaw bi ca la gedd ñibbi Fatick la ko fa jëlee na xaw ma ko bés daal ma yaayam seet si ne ma dama laa bëgg a dénk Macky Sall munu ma woon a bañ loolee ndax na ma demee woon ak moom bañ na ko ba su masaana dem Fatick bu may ñibbi yaayi Macky Sall moo ma daan gunge ba ca alt ba mbéñu di Amadou Abdoul Sall mi jur Macky Sall maire ne daanul woon jug suñu kër ca Fatick Alioune Sall la ko yóbboon Kaolack mu fekki fa Macky Sall ginnaaw luy leen fépp néeg boo xam ne weer wu nekk 1500 di ñetti téeméer laa ca daan fay bu bëccëgee ñu ñëw yendu ci kër gi fi la añee fi la reere bu guddi ñu dem seenub nekk fanaan fa sama doom ju jigéen di ndey penda ca yooyu la jamono mënul di leen rootal ba mu leen di baleel seenub nekk dama mujjoon dem jëli seen nas ndaw soo xam ne moo leen di rootal di leen baleel ma ko daan fay maire Ndiaye ne wàll observateur maa ngi fàttaliku ay ronxañam di jooy ne benn yoon laa ko fi mës a dégg te bu mu ñëwee jaaro fi sama doom ju jigéen ji di Ndeye moo dem seeti ko daj fa safaak marwa def kemte lay kàttanam ca lay a gis ko da koo booleeg nit nit kookee moo ko ko jox gars yi l'observateur yi ne ko ndax Macky Sall daan na la ñaan xaalis ba a série a yaru ndax dafa gisee sax ak jigéen baa boog musu ko indi ci kër gi maire Aïssata Arouna Ndiaye ne waa l'observateur wëyu bi kay mooy Aliou Sall waaye nag mooy sama séddoo li ko waa l'observateur mujjee laaj moo di première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall ak mbaaxam ñëpp a ngi koy wax nee nañu mboolem ku mës a jëflanteeg président Macky Sall ngay xaritam baa am di jàmm baa nga lebal ko teraanga moom Marème Faye Sall moo la koy fay ndax mës nga koo gis ndax mës a fee ñëw maire Aïssata Ndiaye ni leen ak mbaaxam a koy wax waaye ko moo di atum 2000 bi ko dégguma ko dinaa koy dégg Kaolack nag waaye seet si ne fii moom du fi jaar ma jaare foofee bàyyi meer Njaay ci l'observateur te dem seeti Karim Wade ak gaayam bi leen enquête yéen a kaay Karim Wade ak layoo ba ñu koy def journal bi nañu bii mooy virage bu mujj ne muy ay avocat di moom Karim di avocat yi nga xam ne ñoom la nguur gi jël kenn ku nekk yaa ngi jaay sa morom ñor di teg say stratégie Sud Quotidien nañu avocat nguur gi ñoo ngay deeduwaane Henri Grégoire Diop ndax avocat Karim Wade nee nañu seenub client di Karim li ko tee dem ci tribunal ba Henri Grégoire Diop moo ko ko def loolee nag Karim Wade daa dem ba xam xel ne mënatut a génn ci yëf yi moo tax mu bëgg a saboter procès bi ne témoin ñi nga xam ne ñoo ngi leen di woo ci tribunal ba ku ca ñëw la ngay wax moo di Karim li ñu koy toppee moo ko def journal bi ñu gars yi Thérèse Faye Diouf yi di jeunesse républicaine seen xalaat lañ doon joxe ci tolluwaayu réew mi ba def ci communiqué la njëkkee ci communiqué ba moo di ñi nga xam ne ñoo ngi wër di ŋàññi président Macky ak dem nga mu demoon lu dul bëgg def yu fi politique le soleil moom xëy dikk ak ñun ci manifester gi nga xam ne plateforme africaine droit de l'homme ak développement doon ko amal keroog samedi ngir doon jéebaane Charlie Hebdo na mu doxalee yéen a bi nañu ca dox boobee Mohamed Boun Abdallah Dionne di premier ministre bu Sénégal ma nga ca lu mu wax nay kàddu bokk ci li mu ne li Charlie Hebdo def Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa loole mitti na président Macky africain droits de l'homme et des peuples tooju ñu fenn ne seen manifeste gi doon def keroog ca place Obélisque bañoon koo defa gën nekk kenn wuy leen journal bi nañu askanu Sénégal tànn nañu seen kan kan Coupe d'Afrique des Nations wala kan maanaam dok ma jaare dem ci beneen kan bi mu di Coupe d'Afrique des Nations bay am ci Guinée Sénégal Algérie yéen nañu suba la populaire nañu waaye kii di Alain Sires ni mu doxalee keroog ba ñuy football ci góobe gar ko waa sport nañu jamono ji gaynde Sénégal yi taluñu dara ak li ñu dët mal seen gët yëpp ñu ngi ko yëkkati teg ko ci Algérie stade moom la ko police bett mook benn xale bu jigéen ñu nekk fay defante di warante ak di wàccante la si nañu attentat à la pudeur ko jàppe moom Lac ko jàpp populaire ne leen toj leen yaax bi keroog samedi 11h ci guddi la ko jàpp moom Lac de Guiers 2 fekk ko ci otoom ak benn xale bu jigéen bu toll ci ñaar fukki at ak ñett xale ba jàllalo sant di liggéey ci benn boîte de nuit ña nga leen fekk ca technopole ba ñu gaare seeni oto ci barab bu lëndëm lool barab boo xam ne ndox akum ñax doo nga fa am bi ñu ñëwee ñoo ngi fekk Lac de Guiers 2 ab kilotukub la sol nekk di warante xale bu jigéen bi ci biir bi Mohamed Ndiaye sant nañu la yéen tamit naka noonu ci teewlu bi safoo bi ak kóolute bi jéggalu ci gëstu bi ngoon di ngeen ko am waxtu wi moo ñu dab ñu yendu jàmm